mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu seen ànd ak Leral TV leeral eh, FM Leral point net ñu ngi fi tey ci Kër Massar fi nga xamante ne foofu mooy eh, rond point mooy ci pont bi nga xamante ne moom lañ tabax fii. li taxoon ñu ñëw fii tey mooy eh, presque ñu ngi ci ñeenteeli fan ci déguerpissement bi nga xamante ne moom la commune bi di initier. mu nekk ay commerçant yoo xamante ne ñu ngi leen di jëlee donc ci voie publique bi occupation anarchique maanaam euh, taxaw ci mbedd ci anam bi nga xamante ne bu rafetul loolu nag la mairie daal di initier di jëlee fi ay commerçant mu nekk initiative bi nga xamante ne euh, maire euh, Mouhamed Bilal jaata moom moo ko initier ànd ci ak autorité locale yi préfet sous-préfet waaye tamit aussi force de l'ordre ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko euh, gunge ci initiative boobule ndax moom Mouhamed Bilal Diatta euh, jàpp na ni anam bi nga xamante ne moom la ñu occupé voie publique bi ak tamit yoon yi nga xamante ne ñoo nekk ci marché yi loolu jaarul benn yoon. mu nekk initiative boo xamante ne askan wu bëri ñoo ko ñoo ko rafetlu ndax occupation yi nga xamante ne commerçant yu bëri ak ñeneen sax ñi nga xamante ne nekkuñu ay commerçant ñu ngi koy occupé donc ci euh, publique bi. loolu nag moo taxoon initiative bi mu nekk loo xamante ne donc lu rafet lool. commerçant yi nag aussi ñu bëri jox nañu leen kàddu la ñu wax mooy que mbir mi waroon nañu ko defee tamit ci anam bu gën a rafet ndax ñoom it dañuy daan seen doole. Ahmed Bilal Diatta moom la àndal moom tamit am na ay kàddu yu mu yëkkati mu nekk ay kàddu yu rafet lool waaye tamit commerçant yi ñoom it tamit aussi wax nañu lépp lu jëm ci wàllu wi. Euh, ci li nga xamante ne yëkkati bi nga xamante ne moom lañu leen def fii ñu dem teewlu leen ci seeni i kàddu. xam dañ koy jàllale mu metti ñu lool mooy li nga xam ne moom la meeru gox bi def te moom bu mu fàtte ni ñun noo ko fal moom kese faluwul quoi ñun noo ko fal gis nga tey jii bu dee dee defar ak fi nga xam ne fii la julli tabaski bi toll mënoon na ko defaraat ci beneen anam bu gën a rafetee nii ndax ñun noo ko fi teg gis nga tey place yi ngay gis nii bu fekkee émergent la ñuy wax li tey ji place yi ngay gis ni bu pare borom doole yi lañ koy jox ñii di lal fii nii yëpp ay néew di doole lañ amuñu doole moo tax ñuy lal fii te amuñu ay métiers yoo xam ne dinañ ci am koom boo xam ne dinañ la ci mën a génnee nga Sénégal wàllum commerce moo fi dox te lii nii munu fee dak gis nga Macky Sall li moo ko fi jëlee te même pas deux mois ñun ñu doyal ci ñoom ñun nag lii nii sonn nañ ci de te day gën a ëppi loxo nag lii nii dañuy seetaan nii rek mais bu ci kanamee day gën a ëppi doole lii taxul ñu génn fii taxul ñu génn fii loolu nag la amoon lu may jàllale nag nañ bàyyi gars yi liggéey ngir yàlla te yonent bi te yàlla tax nañ bàyyi gars yi liggéey te yàlla tax. déglu la ni. waaw moom waxoon na leen fi mu ne bu faloo kenn du fi teg si masambila ñi di jaay kaw tel kenn du fa teg si kaw taabal. ñoom ñu nangu ñu falu leen fi fal leen rek ñoom nañ ko assumé. voilà. waaw ah, ñun daay jaaykat lañu ñu bëgg rek monsieur le maire dawal yërmande ndax metti na ndax tabax si baa dañoo bëgg monsieur le maire dawal yërmaale xam ne ñun li jaay moom la ñu yaakaar tey li ma daan jaay benn fan tey ñetti fan laa koy jaay na dawal yërmaale rek loo rek laa koy ñaan. sonal ñu ñun ay chef de famille lañ jot suñuy njaboot di ñu liggéey te ñoom ñoo ñuy encaisse chaque jour 1000 francs di leen ko jox te suñu encaisse après ramasse bi ñëw ramasse ñu te tabaski baa ngi ñëw ñu yor suñuy njaboot war leen a dundal a bàyyi suñu bagage ñu jël di ko sànni ji te bu ñëwee ñoom ñoo ñu encaisse xalaat te chaque jour ñoom ñoo fiy ñëw nañu bàyyi ñu liggéey ba tabaski passé au moins ñu avertir ñu dañoo sonn kon nañu bàyyi ñu liggéey ndax ñun ñëpp li ñuy liggéey ci la maa sama loxo dafay metti ci li may liggéey ci laa di hôpital fan laa jëlee lu may fajoo wala lu may dundalee sama njaboot te ku fi sàcc ñu tëj la ku fi cagatu ñu def la leneen nañu bàyyi ñu liggéey dans suñu doole mbala ñu yóbbu ñu feneen au moins bu ñu jëlee fii ñoo bu ñu foo dañu moom bañ koy fool naat mais dëkk bi dafa a metti lii nii bu continuer suñu tas dañuy defar waaye nag instant ñu ngi yàq lu baree baree bari parce que ñun ñi toog fii ay ay ay de famille lañ bu ñu nee suñu kër yi ñoo ko yor danga naan déedéet bu ñu toogul jaay fii kër ga dara du sotti suñu jaay bi ñuy jaayee nii ci la ñuy fayee suñu doom yi école ci la ñuy jënd kaye ci la ñuy jënd big yaa may dégg lu dee ci kër gi ñu ñoo ko rey góor ñi nag bañuñu waaye dañoo amul góor ñi soom ñoo war a yor kër yi waaye amuñu ñu ñuy toog ci territoire bii. ñun ñooy liggéey di def ci kër ga añ di def reer di def ndékki xale yi ci école ba leen di fayal yaa ngi may dégg yëkkati bi ñu yëkkati nag war nañoo xool solution bu ñu def waaye nit ñi bomorte ñu ñëpp teg ñu fële luñ. kon ñoom amuñu benn solution. de ah, amuñu benn solution de actuellement dañuy ramasser ñu bagages yi dem yóbbu ko fenn juug ko fa te bu fekkoon da gis sa bagage sax waaw waaye dañ koy tasaare yaa may dégg dañ koy tasaare dañ koy tasaare dañoo sonn. dañoo sonn parce que fu mu toll nii suñu borom kër yi amuñu suñu doom yi amuñ fu ñuy liggéeyee ñii ay xale lañ màggaguñu ci li ñuy tedd nag ci la ñuy fayalee suñu doom yi école ci la ñuy jënd kaye ci la ñuy jënd bic ñu yëkkatee ñun ñu wax ñun bu ñu yëkkatee nan lañu war a def ñun ñii waaw bu ñu yëkkatee tey fan lañu war a jëm rek. dañoo sonn nag dañoo daw ba sonn chaque jour ñu dàq ñu chaque jour ñu encaissé ñu juuti dellu di encaissé chaque jour mi te dañ koy fay te du tee chaque saa yi ñu saa yi ñu ba dem ñu ñëw ramasse ñu yóbbu dañoo sonn ndox dañoo bëgg ku ñu dimbal te yàlla rek tax ñu bàyyi ñu ñu liggéey tabaski bi ñoo ne dañuy dañ suñu doom yi ñun ñoo leen yor ñun ñoo yor suñu doom yi amuñ yaakaaruñu fenn lu dul si suñu njaay mi nañu bàyyi ñu liggéey. ñoom suñu njëlee fu ñu amuñu fenn fu ñu teg amuñu dañuy ramasse suñu bagage yi yóbbu maye ji ko wala lakki ji ko amuñu fenn ban yaa ngi dañ koo yóbbu amuñu fenn fu ñu teg amuñu fenn lu ñu teg dafa metti dañoo sonn nag dañoo sonn dañoo bëgg ku ñu jàppale te yàlla rek tax ñu bàyyi ñu liggéey bëgg ñu sàcc bëgg ñu fenn bëgg ñu cagatu. lii teguñu ko si yoon parce que nit balaa nga kaa yëkkati fenn nga tool ko fu mu nekk ñoo xamante ne ni au jour le jour la ñuy dund ñoo xamante ne ni daa am ay nit ñu topp seen ginnaaw marchand ambulant yi nekkuñu ay ay borel ñoom ay famille lañ yor di dundal ay nit kon waroo leen tëb tëb rek yëkkati leen utal leen ay place Kër Masar amul marché. na kenn kenn kenn génn taxaw ne fii mooy Kër Massar fii mooy marché Kër Massar Kër Massar amul marché xam nga lii nii ñuy def nii teguñu ko si dëgg teguñu ko defuñu ko si yoon xam nga lii rafetul ñun nii nii lii dañ koy ñaawlu ba si maire Kër Massar maire bi liggéeyul liggéey gis leen ma lay liggéey état bi liggéey gis leen ma lay liggéey liggéey bii nii teguwul si yoon lu ñu war a defal si dëkk bi moo moo lu ñu lu ñu war a leeral si dëkk bi du lii am na leneen lu jiitu lii war nañ jéem a xool nit ñi nan lañ mën a lekkee ak naan ba pare ñu soog a yàqal nit ñi seen liggéey dund bi seer na ba pare bëgg a yàqal nit ñi seen liggéey loolu du dëgg du yoon lii ni kenn rafetlu ko te ñun nag maanaam liggéey par la force la parce que ñun ay doomu gor ñoo ñu jur duñu sàcc ñu ñaan dañuy liggéey par la force wala ñu dee wala ñu yóbbu ñu fu ñu yóbbu ñeneen yi dañoo xëy rek def seeni def ah ne dañ nañ nañ fi jëlee te ku fi ku ñu fii jëlee marchand ambulant la comme ñun maire maire bi gënuñoo jàng ñoo ko gën a jàng téeméer junni yoon marchand ambulant la doon ambulant fii ni xëy un bon jour Kër Massar mosul am maire bu jàng maire premier maire maire bu fi jóge maçon la maire bi ni ambulant man la woon te mu ngi nii nii tey yëkkati nit ñi loolu du dëgg du yoon ñii nii liggéeyuñu ay liggéey gis leen ma la ñuy liggéey maire bii nii liggéey gis leen ma parce que ñoom yaa ñun dañ leen doon fay de ñun marchand ambulant yi bii nii ñuy lal chaque samedi dañu doon proposer 1000 francs chaque jour ñuy daggu juuti kon nag du ñu xëy un jour yor seen caméra di di di vidéo nit ñi di vidéo seen bopp di wan ne président ñu ngi liggéey dañuy yàqal président. ñun ci événement la ñuy dem parce que ñun dañoo war a dañoo war a jënd xar. si événement tabaski dañoo war a jënd xar. kon kenn du ñu yàqal loolu noonu. loolu noonu ku ñu ko nar yaaxal maanaam daf ñuy rey chaque jour dañuy lal ñu ñëwee nag lu ñu war jàpp nañ tey ni éléments yu bëri suba tamit suñu ñëwee tamit ñun tamit nañ ñu yóbbuwaat quoi. ba ñun ñëpp ñu jeex ñu loolu lañ bëgg jomaay nag ñu moom la ñuy waxal ñu ñoo ko fal ay maire yi nii ñoom falu ñu ko maire bii nii mu woon prison ñu ñoo doon xeex ñu ñoo sànni suñu carte kon ñun ñoo ko voteel kon ñun bu ñu teel a xaxatal bu ñu teel a yàqal yow ñun dafa nguur gi defagul trois mois sax ñit di commencé di di am ay doute ci nguur gi loolu noonu du dëgg du yoon xaaruñu ko woon de wallahi azim xaaruñu ko du dëgg du yoon lii rafetul parce que liggéey ñun ñun ñun ñun ay ay ñun ñu ngi si dëkk bi ndaamee ni ñoom droit lañ jàng parce que ñoom droit ñoom lañuy la ñuy imposer nit ñi. waaw te ñun tooxuñu ñun ñu ngi xëy ñun 5 heures du matin di wàcc 22 heures yow koo xamante ne nii journée mënul jaay 20 000 francs kooku noonu nan nga ko mën a jëlee ay place 300 000 400 000 yow ñun ñun ñun ñun liggéey du dundee ñun la ñuy def liggéey ñu denc loolu noonu xam nga lan la war a def maanaam ñuy sàcc terrain yi ak ñuy sàcc ñeneen yi si ñooñu la ñu war a njëkk jublu. liñ ko gisee moom wax dëgg fa yàlla. xañ na ci benn côté Bilal mën naa doon koo xam si ni koy defar la mais am na loo xam si ni naqari nañu si ñun ndax ñun ñëpp ñoo àndoon ak moom bi ñu xeex ci jamonoy manifestation 2021 ba ci jamonoy mois de juin yëpp ñoo ànd ak Bilal fii nii xañ na moom xàmmeewu ma mais man xàmmee naa ko bu baax. barit xàmmee nañu am na loo xam si ni bi bi affaire bi amee nii. am na ñoo xam ne dañ doon wax jëwriñ yéen kat yéen a fal ñoom sonkoo ak Jomaay gàcce googu noonu ba léegi nii man daf ma toog bu rëy rëy rëy rëy wala betteel gu rëy la ci ñun parce que mës ñu ko woon a séentu mais nag mais nag xañ naa am na loo xam ne sax ñun duñ ko mën a wax ndax dañoo bëgg sonkoo bëgg koo xam ne si bawuñu dara ñu di ko taxal ci moom wala dara mais lenn naqari nañu ci liñ ci naqari mooy bagage yi nga xam ne dañ koy jàpp te buñ ko jàppee di dem di ko sànni ca àll ba ay nit di ko jël am na ci koo xam ne benn puus-puus la yor di taxale di jaay eh, ay pitikoolaa ba am lu mu jëndee puus-puus mu jëndee ko puus-puus biñ ko jëlee fii sànni ji ko ca àll ba ñu jël ko yóbbu ko feeraay loolu ñaaw na lool maanaam mën nañoo jël bagage yóbbu ko ci mairie bi wala ñu yóbbu ko gendarmerie bu boobaa bu aajee fay ñu dem fay ñu delloowaat ñu suñ bagage loolu moo gën a rafet nit ki buy defar day am foo xam ne si daf jaar mais bu yàggee day day day defar ba far ba ba far ah day defar ba far yàqaale te loolu rafetul wax dëgg fa yàlla ñu sañoon nag bilaal parce que xamante nañu baax yàgg nañu ànd ak moom ci terrain bi moom moo ñu xamul waaye xam nañ ko baax lu nekk daj nañ ko ngir ñoom am na loo xam ne si nii nag jaru ko fi adduna jarul yenn yi. ñu ànd ak monsieur le maire Mouhamed Bilal Diatta si déguerpissement bi nga xamante ne population bi yëpp loolu la ñu doon yàgg bëgg rawatina nag ñi nga xamante ne ñooy faral di dugg Kër Massa waaye di fi fréquenté. alors mu nekk loo xamante ne c'est une demande sociale avant tey jii nii monsieur le maire Bilal Diatta di fi nekk population bi ñu ngi ko doon bëgg rawatina nag bi nga xamante ne Kër Massar population boo xam ne chaque fois day gën a yokk mu nekk loo xamante ne nag tey jii nii gis ngeen Kër Massar nit ñi dañ fi bëri am na si ñoo xamante ne tey ñi ngi jël ay marchandises yoo xam ne dañ koy teg fii xam nit ñi fa la ñuy war a jàll yenn saa yi sax nga gis nit ñoo xamante dañ naan mais tali yi nga xamante ne oto yi dañ fay jàll lu tax population bi di fa jàll alors que maire bi yi nga xamante ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo war a déggal pi nit ñi fii nit ñi di jàll ñu war fa euh, yi mën fa jàll alors loolu nag mu nekk loo xamante ne monsieur le maire c'est pas la première fois mu def ko déguerpissement bi se juste pour le euh, le bienfait aux populations bu Kër Massar mais ak ñi nga xamante ne sax même bu ñu dëkkul Kër Massar mais dañuy fréquenter Kër Massar parce que tey Kër Massar carrefour la boo xamante ni ñiy dem Tivaouane Peulh ak fépp daanaka dañ fay jaar ak Malika pont fii ne carrefour la six communes yëpp daanaka dañoo sëkk pont euh, suuf pont te gis nga ne que suuf pont bi garab yi xamante ne sax dañ ko fi defoon yu si bëri yàq nañ ko te ñi koy yàq dëkkuñu Kër Massar nekk nañ ñoo xamante ne dañuy ñëw soi-disant nee na dañuy daan seen doole waaw daan seen doole kenn bañu ko mais da nga koy teg si légalité doo ñëw nga jug ne carrément lii ñuy def du yoon déedéet yoon yow sa jëm bopp ciy nekk ba pare ñu ànd sañu donc mu nekk loo xamante ne tey ñu ngi rafetlu lii du affaire politique affaire defar dëkk bi la affaire defar pour population bi la parce que yaakaar naa ne état buy sonn pour di defar ay euh, ay ay structure wala ay yoon yoo xamante pour ñu ñi fa war a jaar c'est pas pour que ay nit ñoo di fa teg seen jaay ba nit ñi duñu am fu ñu jàll mais monsieur le maire tey fi mu toll li muy xeex mooy occupation anarchique ak insécurité que gis nga ko léegi mi ngi ànd ay gendarme gendarme yi ñu ngi leen ci félicité davantage si liggéey bu exceptionnel muy def à travers commandant bi muy waa police aussi muy préfet sous préfet ak autorité yëpp commune Kër Massar Sud ak ñëpp ñi si jàpp franchement ñu ngi leen di jaajëfal bu baax parce que lii nii pour population bi yëpp la du pour ma Demba du pour ma donc monsieur le maire li muy jug di def nii dafa ko pour lor kenn mais c'est juste que dañ ko fal pour mu liggéey dañoo fal président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour mu liggéey fal tey premier xamante ne demande population bi la te moom nag du si tàyyi du benn fan du ñaari fan shaque jour incha allah fii ak yàlla mi ngi ñu koy may dina ànd ak avec toutes les autorités compétentes ak forces de l'ordre yi pour régner l'ordre ici à Kër Massar. mais gis nga ko déjà présent fi mu toll nii bi su ma juumal mooy quatrième jour boo xamante ne ou troisième jour boo xam ne monsieur le maire mi ngi si ànd ak force de l'ordre yi di si ànd ak ak waa commune beeg ñëpp donc nekk na loo xam ne lu ñuy bàyyi fii incha allah en tout cas ba jul bi di jot. moom dina def lu si war ak force de l'ordre bi chaque jour dina am déguerpissement chaque jour danañu fexe ba Kër Massar mais nii nga xamante ne loolu la ñu ngi bëggee mooy maanaam ñuy circuler librement kañ a ban encombré sa morom. parce que tey jii ne daan doole baax na mais booy daan doole fexel ba omo si bu lor say ñi nga xamante ne tey mooy population bi parce que sànq ba tey peut-être tout au début ñu koy def personne n'avait compris mais depuis ma euh, si à partir de deuxième journée bi ak ba tey jii nii mais nit ñi ñu ngi ñuy féliciter de gauche à moo xam si appel téléphonique yi moo xam ci mbedd bi da ngay dajeek ay nit ndeysaan ñu wax a xam sa yaram day daw boo xam ne ñun boobu ba tey dañ doon jooy maire bu ñuy defal lii nii kon ñu ngi félicité monsieur le maire Mouhamed Bilal ak képp ku ko jàppale te xam ne que lii mooy liggéey bi te incha allah population bi ñu ngi ko si ñaanal di si ànd ak moom parce que c'est le bes c'est le bienfait de la population mooy fexe ba ñu di mën a kon nag ñu ngi siy encouragé képp koo xam ne te population bi dañoo war a encouragé lii bu baax donte ñu ngi koy def waaye na si ñëpp jàpp lii bu mu nekk rek affaire gendarme rek wala affaire de commune bi wala affaire monsieur le na nit ñi approprié li nga xamante moom la leen seen réew defal moom la leen état defal parce que tey ji jardin bi bu rafetee Kër Massar rafetal tey ji ni bu ñu sañoon doo ñëw ni naan Kër Massar de foofu désordre la boo xamante nit ñi duñu am sax fu ñu jàll donc loolu nekk na loo xamante ne moom si la jug di dugub pour lor kenn il est juste là pour travail li tax ñu fal ko moo tax def bu dee maanaam nag dañ koy fal ba pare maanaam bëgg koo yàqal si li nga xamante mooy liggéey population bi mais kon balaa caa mu toog jàpp bàyyi leen nag moom si jëmi bopp boo xam ne man bëgguma benn poste boo xamante ne ma koy jox c'est parce que dafa bëgg liggéeyal Kër Massar amour bi mu am pour Kër Massar ba di def ay santé gratuite ak leneen ak leneen amour boobu la am pour ñëw pour defar Kër Massar kon na ko si nit ñi ñaanal te xam lii naan politique sax si benn côté moo nekk parce que c'est l'art de gérer une cité donc nag fi mu ton nii il est de gérer mi ngi ànd ak force de bu ko neexoon toog ci climatiseur am nekk ak ay garde corps am di def lu ko neex. na si ñu si bëri ñi xamante ne ñoom ñoo fi dëkk fi fi sànq wax naa ko si biir ay kaddu dëkkuñu fi donc nag tey ñi ne ñoo fi dëkk ñoom ñoo siy te tey ñooñu ñoom ñoo fal monsieur le maire pour mu liggéey la kon lii c'est un devoir moom nag mu nekk la capitaine du projet mu nekk capitaine président Ousmane Sonko donc le bon exemple si moom lay njëkkee kon nag ñu ngi ko si ñaanal di ko si encourage bu wax na jeunesse lii nañ ko ndax tey bu ñuy voté le président Ousmane Euh, ak euh, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye c'est pour que ñu liggéey leen dëkk bi nit na bu lay liggéeyal da nangu boo nekkul si dëgg nga xam ne nekkul si dëgg boo nekkee si dëgg nag mu accompagner la moom amul problème si loolu